إنني أثني على خير منأمي ولا أستكي للخلق من فخد أن أمي ألا إنني أثني على خير منأمي ألا إنني أثني على خير منحمي ولا أستكي للخلق من فخد أن أمي ألا إنني أثني منهمي ولا أستكي للخلق من فقد أنهمي فمن ذنني في قلبتي ساعة تسللين إلى خير مخن وازن فهو قد أمي لو أتكيل فيه وفقري وقربتي وأرجو رجويها إلى الخير منحني سكوت له أكسي فأزكى وكان لي بما فاق سني فهو أكرم مكرمي مع جانبي من قرأ كفرهم به فأنعم أماني تاردا كل مجرمي ما جعلني بي من خيرهم كفرهم بي فانم اماني تاردا كل مجرمي لو شكر مني راجيا من ام ادلبي بلا كلفة مني وغرس على مخرمي لئن قرني لئن قرني لئن قرني من قره سن آسدا فما قرني من قارني بتكرمي البر في البر ساقلا فقد جاءني في البر جود المكرم ومن ساءه كوني لمولاي لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم ومن ساءه كوني لمولاي عابدا وكوني قديما للسفي المقدم فإني له في البر والبار عابد خديم لمنجن من دواعي تندم ومن صدأني فالمواهب أقبلت من الواسي المغني أفيس المقدم ومن يلقني في البر روما لقربتي فلي من إلهي عوض في كل أيلمي لربي تجائي في أدوري وقيبتي وبالمصطفى أسكو له ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di yëkkati ay kàddu ngir taarale ko jataay bi ci turu Serigne Abdou Samad Mbacke moom Serigne Chouaïbou ginnaaw bi ñu da ginnaaw bi ñu dalalee sunu yaakaar yi tey ak ëllëg mu toog fi toogaayub Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy Cheikh Mouhamadul taxaa moom Cheikh Mouhamadul Basir sëriñ bi Serigne Abdou Samad nee na moom ak njabootu Serigne Touba gi fi daje ak mbokki taalibe yëpp ñu ngi ànd fas seen bopp di la ñaanal sunu borom wéral la te guddal saw fan. nee na mi ngi lay ñaanal li nga bëgg a liggéeyal tubaa Touba lépp yàlla na nga ko yeggale ak ñim la soobee. mbégte mi mu am tey jii nee na amul fenn fu mu ko mën a takk ci àddina ndax xam na sa diggante moom ak yow nee na yàgg na du tey waaye mbégte mi mu am mooy ginnaaw bi nga joxee ndigal ci weeru koor wii ñu dundale ko fu mu mën a doon ci Sénégal ak ci bitim réew képp kuy wuyoo ci turu Serigne Touba Xaadimu Rasuul képp kuy wuyoo ci turu murit ak taalibe ci la taxawale bërëb bii ne fi la lay njëkk a dalale mbaar mii da koo defar defar ko tudde ko mbaarum alxuraan ak xasida fas yéene ndigal li nga joxe ci weeru koor wi ñu di ko dundal fii ba weeru kor wi jeex nee na defu ko dara lu dul lépp luñ fi jànge mu ñaanal la fi sunu borom guddal saw fan wéral la di sàkku itam ñu di ko def ci ay bërëb yu faccanti ko mbégte mi mu am tey jii nag bi ngay egsi ci jataay bii mi ngi feggoo ak sëriñ Ahmadou Rafahi moom Cheikh Mouhamadul Fadal feggoo ak sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdul Xaadir mi nga xam ne si lépp la feggoo ak sëriñ am Amsatu Mbàkke moom sëriñ Chaybu wax ne ñoom ñii dafa wax ne yéen maag yéen ñoo bokk pas-pas bokk sëriñ Touba Xaadimu sool sëriñ tubaa nag buy jóg di ñëw ci daara jii nga xam ne daara yi sëriñ bu la damaa bëgg ngeen ñëw nu àndandoo dalal sëriñ bi ñu ñëw jiit sula la fii yëkkati fi ay xasaayit toog di la néggandiku Mbàkke noo ngi lay ñaanal sunu borom lu saw fan gudd rek doyul noo ngi lay ñaanal lépp jëpp yéen a joo am ci sëñ Touba nga ko waaye nag nee na tout tànk yi doon yëkkati xasaayit ay sëti sëriñ champs yu ba lañ ñoom ñoo la tatagale xasida yaa xayra day fin nga darale la ko ci bis bii wax nde yii benn bi nooru daaree nii la nooru daaree nii googu moom moo tàmbali mbind mi ak njabootam ñoo ko yeggale mu bëgg lu ko daleel ndax ku xam na sa digganteeg xasida yi ku ne xam na sa digganteeg alxuraan beneen waxande wi lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett moo ci nekk nee mu yëkkati ko mu dib lim ne da ko la koy ziare ci nooru daare nii nee na sëriñ Amsatu mii moom sëriñ Chouaïb bu moo ko bind yëkkati limub alxuraan la toll ci juróom benn fukk ak juróom benn muy 66 mu dib lim nee na mu yëkkati ko dolli ko ci yëkkati ñaar fukki maraaxit ak juróom-ñett muy 28 nee na mu dolli ko ci lépp nag da cee jublu rek nee na ñaanalee la ko sun borom guddal saw fan ni mu ko waxee yéen a jii nga am ñëw ci bis bii siyaare si ko mboolem ku dib taalibe bi wax na la ko ne la ñëw leen